وفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñi ngi santaat suñu boroom ñi nga xam ni moo ñu dëppale ñu daje ci ab néegam fas yéene jàng benn bind bu aju ci suñu diine muy bindu fiq bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ku waxoon ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin yàlla day képp ku mu bëgg ci yow yiw dana la xamal la nga xam ne mooy sa diine ñu koy sukkandikoo ci téere bi nga xam ne ki ko bindoon mooy ibnu abi zayd al qayrawani mu tuddee ko risaala ñi ngi jëloon ay bind ci téere boobe ba yegsi ci fanweerilu bind bi ak ñaar fanweerilu bunt bi ak ñaar mu nekk bunt bi gën a yaatu ci téere bi muy jëm ci wàllu la nga xam ne mooy sëy ak la aju ci sëy su doonte ne ne yaa ngi yor samaru daani bi yaa ngi ci page 451 su dee yenn moolu traduction bu xonq bi mi ngi page 69 am na beneen bu xaw a rose xam naa xama mbokk yi ko yor bu ñuy mën a jàppalante ci loolu te it moom mooy le premier ci weeru mars ci 1400 ci nu ñu koy waxee ci 2020 di tombeek le 6 ci li ñuy tuddee rajab ci 1441 sunu maam yi di ko tuddee ndeyu koor falilahi alhamdu it am na mbokk yi nga xam ni ñu ngi góorgóorlu ba dars bi ñu ngi koy jaarale nii en direct ci Facebook bi am na mbokk bu yónnee téléphone bii ngeen gis sax ngir image yi gën a doon image yu leer yal na yàlla subhanahu wa taala fay ko kon bu dee ne yaa ngi may topp ñi ngi yëg si fi suñu borom di waxee ne wala ñi ngi yëg si fi borom téere bi di waxee ne wa xarama allahu subhanahu wata alkawafir mi ngi noonu fi nga jàngee fi muy jàngalee li yàlla araamal ci ay jigéen jàngalee yonent bi alei salaam li mu araamal ci ak naam bokk na lu mu lay jàngal wa xarama allahu subhanahu wat al kawaafi su dee gis nañ ko ñu jàng kon borom téere bi day wax ne wa xarama allahu subhanahu yar araamal na yàlla day ñi ngi tudd ak sellam wat alkawaafir ci jullit bu góor di bokk ak lal yéefér bu jigéen di sëy ak moom mimman laysa min ahlil kitaab ci ñoo xam ne bokkuñu ci ahlul kitaab bi milkin aw nikaah na doon loole ab jaamam la walla mu doon koo xam ne da koo takk ci sëy wa yaxillu wat al kitaabiyaat bil milk dana dagal nag nga sëyëg sa jaam bu jigéen bu nekk ci ahlul kitaab mi ngi noonu wa yaxillu wat u xaraa'irihinna bi nikaax noonu it lay dagal nga mën a ànd ak ci lal ña nga xam ne ñooy gor ya ca ñoom waaye loolu mooy ci ab sëy bu ñu takk wala yaxillu wala yaxillu watu imaa'ihinna doonte ne nag du dagan ngay sëyëg jaam boo xam ne ahlul kitaab la bokk bi nikaaxin ci ab sëy lil xurri wala lil abd du dagan ci góor du dagan ci jaam muy sëyëg jaam boo xam ne nii jaamu ahlul kitaab la wala tatazawwaju almar'a abdaha naka noonu it jigéen du ànd ak sëy jaam boo xam ne moom moo ko moomal boppam wala abda waladiha wala muy see jaam boo xam ni doomam moo ko moom wala rajulu amatahu naka noonu it góor du sëy si sëy bu ñuy takk mook jaamam bu jigéen wala amata waladihi wala jaam boo xam ni doomam moo ko moom waaye nag walahu an yatazawaja amata waladihi dana ko ñeel mu sëyeeg jaamu doomam am amata walidihi jaamu baayam wa amata ummihi ak jaamu yaayam mi ngi noonu mbokk bind bi ñuy jàng fii day wax ni jullit day araam ci moom mu daa di sëy di bokk ak lal koo xam ne amul diine koo xam ne amul diine bu jóge kaw asamaan te sun jamono yi tey jii lañ ca reconnaître ñaari diine la mooy yahud ak nasara day nekk juif wala mu nekk chrétien su dee ne koo xam ne athée la lu ëpp ci asiatique yeeg ak lu bari ci occidentaux yi tey suñ demee ba feeñal ne moom nekkul ci diine ku mel nii day xaram nga takk ko di sëy ak moom bu dee sab jaam la it day xaram ngay ànd ak moom ci lal xanaa lu dul ni daa tuub moom la borom bi di wax naan wala tankihul mushrikaati xatta yu'min loolu itamit di mbir boo xam ni dañ ci war a bàyyi xel doonte ne lu bari suñuy doom yi dem Occident duñ bàyyi xel ci loolu mbokk Occident tey ji seeni maam ay chrétien lañu woon waaye lu ëpp ci ñoom tey bàyyi nañ diine christianisme mi ngi noonu lu ëpp ci ñoom boo leen waxee bàyyi nañ diine christianisme ala kulli xaal ku mel noonu araam na ngay sëy ak moom dañ la koo may may ñu la ko gannaaw ba nag bu mu wax ni su dee da nga am gor boo xamee ni nii moom chrétien la man ngaa dem ñu may la ko muy soxna su dee da nga am jaam boo xam ne jaam bi chrétien la wala juif ku mel noonu it man ngaa sëy ak moom gis nañ booru Égypte mayoon na suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam Maryam al-Qibtiya Maryama boobu ca la yonent bi amee benn doom bi mu am ca Madina muy Ibrahima alayhi salaam gis ngeen loolu kon dana dagan amma ixtilaaf day am ci borom xam-xam yi léeg-léeg ndax chrétiens yi wax naan Jésus seen yàlla la yu demee noonu dañ ca bokk comme na ko Ibn Omar daan bañi waaye la gën a dëgër mooy daal tant que mi ngi reconnaître ne moom ci diine nasaraan la bokk comme noonu dana dagan ñu sëy ak moom gannaaw ba nag lay wax ci ni jigéen boo xam ne moom jaam la ba pare nekk chrétien wala juif du daggan julit di ko takk du daggan julit di ko takk abadan amma bu dee julit la moom dana daggan nga takk ko ci charte yi ñu waxoon dimanche passé te mooy gor ñaar rek mooy tax islam daganal ko may ku mu takk jaam mooy benn amul kattan takk gor ragal na tabbi ci ñaaro ci njaaloo lam yastati minkum tawlan an yargihal musanat ak la borom bi di wax zalika liman xashiya al-anati minkum lan moo waral loolu mooy boo takkee jaamub jaambur ngeen am njaboot njaboot yépp ay jaam la ñuy doon loolu moo tax gor bu am kattan takk gor du takk jaam amaa nag amoo gor boo takk te ragal nga da ngay njaaloo ñu ne danger nga dem ci njaaloo gën a garaaw kon takkal jaam bi même bu say doom nekk ay jaam ca gannaaw loolu nag lay wax ne sa jaamu bopp doo ko takk naam sa jaamu bopp yaa ko moom kooku du ku ñuy takk am na nag ngëneel bu rëy bu yonent bi alayhi salaam wax ñoo xam ne yàlla dana leen fay ñaari pay ki am jaamam bu jigéen yar ko ba mu doon koo xam ni ku gëm lislaam la dund lislaam mu goreel ko ba pare wëlbatu ko takk ko loolu moom tuyaaba ju rëy la waaye maadaama jaam la am nga droit sëy ak moom saa takk ko ab takk du am foofu kon mu ni bu dee jaam bi nga xam ne nii yaa ko moom doo ko takk sa jaamu doom it doo ko takk ndax sa doom lim moom presque yaa ko moom loolu it dañuy wax ci soxna si jaamu boppam du sëy ak moom te loolu moom mi ngi noonu bu dee jaamu doomam naka noonu amma bu dee jaamu baayam mën na sëy ak moom te loolu it islaam araamalu ko jaam mën nañ koo may gor su boobaa doom yi ciy juddoo yépp gor la ñuy doon ndax ak njaam ak gor yaay lay topp bu dee ne nag ak famille muy am nasab bàyyi lay topp waaye tey jii gor goo xam ne dafa demoon nangoo sëy jaam ku mel noonu da ngay gis ne doom yi ci juddoo ay gor la ñu doon bal góor gi mën na nekk jaam jigéen ji nekk jaam ñu xëy goreel ku jigéen ki comme nam daleel woon bariira ñu ngi noonu bu ko bu boobaa lañ koy tànnaloo bu la neexee continuer ci sëy bi bu la neexee tas sëy bi bariira moom danoon day tas yonent bi ñaan ko njëkk mu ne daal bu dee da nga maa jégal ma sax ci waaye bu dee ñaan njëkk rek bàyyi ma ma dem uti ca gor ya gis ngeen ala kulli xaal kon mbokk loolu la ñuy wax ci loolu bokk na it ci nga xam ne bokk na xikma bi islaam it may woon ci gor di mën a takk la nga xam ne mooy ab jaam di mën a sëy ak jaamu boppam mooy sa jaamu bopp boo sëy ak moom su ci yàlla dogalee doom dañ koy tuddi ummul walit ummul walat mooy a yaayu doom bi nga xam ne yaa ko moom sa doom la gor la ku mel noonu la ëpp ci fuqaha yi dañ ni amatoo droit jaay ko te bis boo dee dee gore maadaama jur na ci yow doom loolu it doon faveur moo tax ñu may gor di mën a sëy ak jaamu boppam loolu mbokk moom lañ jotoon a jàng mi ngi noonu ñu jël beneen bind mu ne walahu an yatazawaja binta imraati abihi min rajulin ghayri ñeel na góor mu takk doomu soxna papaam boo xam ne beneen góor a ko jur wa tatazawwaju almar'atu ibna zawjati abiha min rajulin ghayr dana daga nit ku jigéen ki dem sëyëg doomu soxna papaam boo xam ne keneen a ko jur ku dul papaam wa yajuuzu lil xurri wal abdi nikaaha arba'i xaraa xaraira muslimatin aw kitabiya noo nit lay dagane ñeel gor wala jaam mu takk ñeenti gor ci julit ña wala ñeenti gor ca la nga xamee ne nii mooy ña am ahlul kitab walil abdi dana ñeel it jàmb nikaahu arba'i imain muslimat mu takk ñeenti jaam ne moom yoo xam ne ay julit lañu walil xurri dana ñeel gor ba tey zalika dana ñeel gor loolu in xashiya laanata bu dee ne gor gi ragal na njaaloo walam yajid lil xarairi tawla ca amul kattan ca takk ca gor ya suba baa may nañ ko mën a takk ca jaam ya ba ñeent wal yaadil bayna nisaihi ca it képp koo xam ne nii dafay takk soxna dafa yey ci moom mu daal di doon koy digg doomu kees la nga xam ne mooy seen diggante mbokk kon day wax ne tey jii benn soxnaa ngi nii di sëy ak papay benn waay soxna si nag moom amoon na doom boo xam ne am na ko ci beneen sëy avant muy ñëw di sëy ak papay waa ji wolof dañ koy tudde doomu jiitle su boobaa dana dagan bu dee kookee doom ba doom bu jigéen la moom mu dem takk doomu soxna papaam boobu naka noonu it soxna si bu doon am na doom ba góor mën naa ñëw takk ki nga xam ne doomu kii séeg yaayam la mu ñëw takk doomam waaye loolu la nga xam ne moo koy taxamaye nag mooy benn charte boo xam ne waxu ko fii charte bi mooy fekk ne xale boobee ñuy takk ba nga xamee ne yaayam di ngi sëy si mooy fer na nampatul fer na nampatul waaye bépp jigéen bu ñëw di sëy si ak góor indaale xale bu muy nampal même bu ko bu ko nampaloon ñetti fan ci kër ga it fekk mi ngi ànd ak borom kër gi su boobaa dañuy considéré ni borom kër gi bàyyi la ci moom maadaama considéré nañ la bàyyi la ci moom xaaraam na ci mboolem ay doomam amma doom yi jiitu woon moom ñooñu moom dagan nañu sëy ñoom ñëpp loolu dara niw ci mi ngi noonu kon lii lay wax ci ni gor itamit am nga droit yow daa di takk ñeenti gor na doon ñooñu ay ahlul kitaab lañu wala ñu ñu ay jurit lañu ñeenti gor doonte ne ne mbokk islam it foofu la ko yemele suñu borom mu ne fankihu ma taaba lakum min nisa masna wa thulaasa wa rubaa takk leen ñaar ñett ñeent su ngeen ragalee ne mënu leen maandu ci diggante soxna ye ngeen yem ci benn loolu umma islam borom xam-xam yi dëppoo nañ ci sahabatul kiram xamuñu ci ko romboon ñeente soxna bal ki nga xam ni Ghaylan ibnu Salama as-Saqafi tuub si na dugg ci lislaam ànd ak fukki soxna soxna yépp tuub dugg ci lislaam Yonent bi alayhi salaam ne ko tànn ci ñeent ñi ci des nga bàyyi leen tànn ci ñeent ñi ci des nga bàyyi leen tolérance kon bu amoon ci loolu kon islam doon na toléré sëy yi jiitu lislaam waaye sëy yooyu sax islam du ko toléré mooy jullit de passé ñeenti jabar donte ne boo ñëwee suñu réew moom li fi xew moom yéen ñëpp yéen a ko bokk xam ala kulli xaal mbokk ñu bàyyi xel loolu donte ne it soo delloo ci occidentaux yi dañuy dal l'islam islam mooy indi polygamie kasa mbokk l'islam indi fi polygamie polygamie l'islam da ko fee fekk da ko fee fekk limité ko ndax bu jëkk nit ñi dañ daan takk lu leen neex ba tey en Afrique am na ñoo xam ne nii yoruñu benn diine yéen a gis internet bi tey gis koo xam ne dañ ko wane ak cent femmes ah mi ngi noonu kii yor ay cinquante femmes islam réalité boobu la fi fekk mu ne nag loolu jaaduwul kenn amul droit passé ñeenti soxna ñeenti soxna yooyu tamit day fekk nga mën a maandu seen diggante yonent bi alayhi salaam ne man kaanat mu ne yonente bi alayhi salaam mu ne man kaanat indaha imraatan fa maala ila ihdahuma jaa yowma alqiyama wa shiquhu saqit ki yor ñaari soxna jéngi jëm ca kenn négligé ka ca des yowma alqiyama bu ñëwee da ngay gis benn wet ga day paralysé loolee njëri la ca nekk doonte ne maandu googu mooy nga maandu ci ay yi nga leen di jox firiwul ne nga yemele maandu ak yemele bokkul maandu mooy ku ne nga jox ko ak xam looloo tax ba soxna bii nekk Dakar dépense ba nga koy jox bokkul ak dépense ba ngay jox ko ne Kédougou ki nekk Paris na nga koy yore bokkul ak ni nga yore ki ne Dakar kii di mesurer deux mètres la nga koy xottil bokkul ak kii mesurer un mètre cinquante ila axiri kon ku ne dañ koy jox ak xam fanaan gi it ku ne nga jox ko ak xam waaye firiwul ne dërëm boo jox kii war nga ko jox kii firiwul it ne na ngay ànde keecalal noonu nga war a ànde keecalal yàggul dara benn soxna ngi ma koy laaj imaam man sama borom kër ah géej ñi fi nangam nangam kasa wa kasa ba mu ñëwee ah mu ne ma daal mënuma ànd ak yow ndax yow laa mujjee ba ma mujjee ànd ak yow ba tey su wujj bee ànd gu ma ak moom bala ma mën a ànd ak yow ànd ak moom mbokk loolu ñàkk xam la loolee yàlla teguñu ko ak ànd loolee moom mi ngi aju ci cawar teguwaat ci loolu daal bu ci jublu lor kenn mi ngi noonu bu dee fanaan gi nga yemele ko lu dul charte yoo xam ne da ngeen koo chartoo woon ca njëlbeen comme masalan li ñuy tuddee ay takkoo tey nga xam ne da ngeen a d'accord au début ni man kat semaine bi benn bis laa fi fanaan wala ñaari loolu moom seen mbir la wala boog soxna bi moom déchargé la ci la sama àq may naa la ko comme yaay sawda ni mu jële woon bis bi yonent bi di fanaan ci moom may ko yaay Aïcha loole moom am na waaye bu dul looloo da ngaa war a yemele seen diggante bu dee ñoom ñoo nekk benn place ca ay ya ngay ay ak ñoom suñu jëlee beneen bind mu ne non ah waaw waaw Cheikh Ousmane mu ne ndax duñu jël quelque laaj balaa gaa yi fàtte laaj bi nag jëm ci liñ jot a jàng naam bismillah waaw waaw ala kulli xaal loolu alxuraan na ko wax alxuraan moo ni nañu takk fa fa mi fa mi ngi noonu fa déedéet waaw uxilla lakum mi ngi noonu nan la ay ay ba tuddee tax wal wal muxsanaat min al muminaat wal muxsanaat min allazina uutul kitaab min qablikum noonu la ko yàlla waxee mooy bu ngeen dee takk takk leen ci ñi fegu ci jullit ñi gëm ak ñi feegu ci ahlul kitaab te loolu it mooy lan fokk soxna si doon koo xam ne njaaloo dafa xar dafa xaram mu teg boppam ci njaaloo mais koo xam ne nii yoonam niwul ci njaaloo dagganul jullit ñi takk ko yal na yàlla yërëm Aboubacar Jaabirul Jazair mu ne gaa yi dem Europe di fa takk ay jabari tubaab mu ne moom day ñoom dañ daan dokk di luñ daan dégg ñu naan jigéen ñi européenne maternité la ñuy xamee góor ala kulli xaal boo ko société la yoo xam ni la ëpp ci ñoom araamalu ñu njaaloo xale bu jigéen bi à l'âge de quinze ans am na coomaam ba muy nekkal ya ëppoo aucun problème araamalu luñ ko fokk kon ci nga xam ne dañ koy takk muy chrétien wala juif suñu borom dax ne muhsanaat muhsanaat dana firi la nga xam ne nii mooy koo xam ne góor la dana firi koo xam ne dafa am jëkkër comme la ko borom di wax ci bi muy wax xurimat kaza wa kaza wal muhsanaat mooy ñu am jëkkër amma li muy wax naan muhsanaat min allazina min allazina utul kitaaba min qablikum loolee mooy ñi nga xam ne feegoon nañ ci njaaloo te chrétien ya wala ci juif ya mi ngi noonu wallahu aalam naam bu dee ci jullit ña ba tey bépp bépp koo xam ne dafa saxal ak njaaloo ñu xam ko ci moom daganul yow jullit nga dem di ko takk daganul yow jigéeni jullit nga dem di sëy ak moom loolu moom da ngay gis ne du dagan nga ci dugg amma bu dee da nga caa dugg ba pare nag loolu mën na am ay acte yoo xam ne nii ndax da nga cay saxam doote sax loolu moom ay yeneen wax la yu xaw a compliqué waaye daal la nga xam ne mooy au début waa ji xam nañ jukkoo muy wër di njaaloo amoo droit may ko sa doom soxna si jukkoo mooy day gàddu saagam di njaaloo amoo droit dem di ko takk lu dul ñu dem ba yëg ne tuub bu sell am na ci ñoom moo tax borom bi ne azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik loolee kon moo aju ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala alam looloo tax ba sax islam dana la daganal nga takki chrétienne boo xam ne muhsanat la chrétienne bu fegu ci njaalu araamal na nga takk julitum njaalookat ndax xam ngeen sëy la cay base mooy ak kuulute am ba nga wóor na ne soxna si may àndal mboolem doom mu jur maa ko moom yaa ngi dégg waaye ku am njaalookat doom yi mu jur noo xam ne yaa moom moomu loolu mbokk mi ngi noonu wallahu alam naam naam naam waaw loolu dina ñëw ci kanam insha allah dina ñëw ci kanam kon bu dee ni liñ jot a jàng amu ci beneen laaj ci liñ jot a jàng naam naam ki takk ñeent bu demee ba faatu nu miraas bay demee ku ki takk di ëpp ñeent mu dem ba faatu ni miraas bay demee ne miraas bay demee mooy ñeent yam jëkk a takk ñooñu ñooy soxna ci lislaam ñeneen ñi bànneex la ñeneen ñi moom bànneexu bakkan la waaye ñeent yam jëkk a takk ñooñu la lislaam reconnaître loolee bu ko defee bu dee miraas lay am ñoom ñoo yoyyoo miraas donte ne loolu mooy ci àtteeg lislaam bu dee ci àtteeg aada nag bu la neexee ñoom gàddu seen yet ne kenn lu ñu tey miraas loolu mi nga noonu waaye bu dee àtteeg sharia daal nañu xam ni jullit liñ daganal ci moom mooy ñeenti soxna gannaaw ñeenti soxna nag loolee moom bànneexu bakkan la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala ala kulli xaal su dee ne xam nga ne dafa xaraam ñooñu doomi njaaloo la ñuy day doon doomu njaaloo yu gën a bon mu nekk nag nga nekk ci société boo xam ne xamoo ne loolu dafa xaraam loolee da ngay gis ne doomi lënt lañu ba baa ñu la koy leeralal waaye képp ko xam ne takk soxna gannaaw ñeent dafa xaraam nga dem takk soxna ñooñu doomi njaaloo lañ loolu dafa am lu ñu tuddee shubuha mooy loo xam ne lënt la loolu doomi lënt la di nga xam ne takk nga ko ca xamu woon ni araam na nga séeg moom masalan comme nañ ko doon jàngee dimanche passé kii sa jarbaat la kii sa doom yi ilaaxira loo xam ne ni sëy araam na ci moom kii idda bi jeexagul woon yooyee dañ koy tuddee doomi lënt amma ki nga xam ne xam na sharia xam ne ni jigéen ci julli ci ñeent la war a am mu dem takk keneen ngir daganal ko loolu mooy daganal ak ak ak njaaloo bokk ca la yonent bi alayhi salaam doon wax balaa adduna tukki sama xeet daan daganal njaaloo bokk na ci forme daganal njaaloo mooy takk soxna boo xam ne yeyewul woon nga takk ko wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw kon ñu jël beneen bind bu dee ne laaj yi ñu ci doon laaj kiiwul naam kon mu ne wa alayhi nafaqatu wasukna bi qadari wujdihi dana war kookee nga xam ne moo takk soxna wala soxna ya moom lay war dépense ba soxna yi di war a dépense ak dëkkal gam leen war a dëkkali ci kemu kattanam nga ko yàlla may wala qasma fil fil mabiti li amatihi ah kenn du jox nag cir bu ñuy ayee ca wàllu fanaan nga ñeel jaam bu jigéen wala li ummi waladihi duñ jox cër bu ñuy jagleel fanaan ak moom ñeel jaam ba nga xam ne da nga am ak moom doom wala nafaqata li zawja xatta yadxula biha lay dépense ca soxna sa nag du la war xanaa lu dul da nga ànd ak moom cib lal aw yudaa ila ila duxul wala boog waa këram jébbal la ko ne la kat sa soxnaa ngi noonu même bu dee ne yow ànd ak moom ci dal dépense am da lay daal di war wa hiya mimman yu'taqu mimman yu'ta'u misluha fekk ne moom yegg na ci âge boo xam ne mënees naa sëy ak ku mel noonu wa nikaahu tafwit wala ñu xool loolu ba pare rek day wax kon fii rek ne ki nga xam ne dafa war soxna moom la dépense mu war ca moom la borom bi di wax alal mawludi lahu kiswatuhu mi ngi noonu risquhu wa kiswatuhu bil ma'ruf mooy ki yor soxna yow la ñu yor nga wa taxewe ko la mu war a soxlawoo ci aada yow yaa ko war a gàddu mi ngi noonu utal ko yére boo xam ne dana ko sol waxuñu la nag nga feesal armoire lu si béton waaye daal bu sedd jotee na am yére bu mu sol bu tàngaay jotee na lu mu sol jox ko yi dund boo xam ne dana méngoog lañ miin ca dëkk ba ñu koy dunde loolu mooy wàllu ko gi wàllu dëkkuwaay bi it yaa ko war a dëkkal dëkkal ko ak foo ko mën a dëkkal loolee yow moom la war ki sa kemtalal kàttan su dee da ngaa néew doole foo fa ngay dëkkal sa soxna ci sa néew doole islam du la ca wax dara su dee yàlla yaatal na sa kattan it suñu borom mu ne li yunfiq zu saatin min saati wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq ma ataahu llah mi ngi noonu bu yàggul dara rek maa ngi dégg benn waay bu ñuy wax moom day dafa feebar am ko ko xam naan kooku day waa këram du ñu lekk ca waa ji borom alal la boo xam ne nii loolu mbokk ëpp naa def yàlla yaatal sa kë sa njaboot nañ koy wax yàlla yaatal sa wërsëg ngal la waay wërsëg woowu yonent bi alayhi salaam nee na yàlla daa bëgg bu wërsëgalee ab jaamam jeexital bi mu gis ko ci moom loole mi ngi noonu kon ku nekk nay def la nga xam ne mooy kemtalal kattanam nay gu ëpp baaxul doonte ne yàqit lislaam du ko nangu abadan islamit du yàq njaboot gi yàq gu dul yàq islamit du nangu loolu kon ci kem la kemtalal kattanam suñu borom téere bi mu ne ki am ay jaam moom jaam moom kenn du ko jox ay moom mën nga ànd ak moom kum la neexee waaye ay ay kenn du ko jox ak ay gannaaw ba it muy wax ne tey waa ji dañ koo may soxna may nañ ko soxna kañ la ko dépense soxna si di war mi ngi koy war bis buñ ko ko jébbalee bis bu àndeek moom ci lal la koy war fi yëg àndugul moom ci lal dépense am warawu ko xanaa lu dul famille bi kat ne laa yow kat yaa ci des sa soxna moom mi ngi nii bu dee ni looloo dañ naan ah kon yow dépense bi da la war waaye daal tànk dañ la ko may rek li xew Sénégal masal mën nañ laa may soxna mu nekk kër ay waajuram ñuy lijjanti nag fii ak ay mois avant muy sëy si tant que loolu amul loo ko def sa coobere la waaye dépense moom mi ngi war ak dëkkuwaay bi parce que soxna si dañ la ko jox moom ci boppam boppam gam la jox mooy remplacer lañ koy def mais bu dee nee loolu amul islam tegu la loolu loolu mooy aju ci wàllu googi da ci jëkk bokk na ci buñ jëlaatee beneen bind mu ne wa nikaahu tafwid jaiz mooy sëyit goo xam ni da nga ko joxe noonu rek mooy loo xam ne lu ñu boyal la joxe ko ca kenn tudd ca can wa huwa an yaqidaahu wala yazkuraani sadaqa mooy waa ji ak ka ñuy may may naa la sama doom nangu naa wala may ma sa doom may naa la ko sëy bi moom baaxu doonte ne kenn tudd fa can summa la yadxulu biha xatta yafrida laha doonte ne nag waa ji balaa mën a ànd ak soxna si ci lal fokk mu daal di koy farataal can gum ko jox wala gum ko nar a jox fa in farada laha sadaqal misli lazimaha bu dee jox na ko mooy tëralal na ko can goo xam ne lu mel noonu la ñuy cane ay sëram sëy ba day war ci soxna si mu sax ca wa in kaana aqalla fa hiya muxayyara su dee ne nag waaj bañ ko mayee soxna daa indi can goo xam ne mu yiis la ñuy may ay sëram soxna si dañ koy tànnaloo fa in karihathu bu dee dafa bañ can googe furriqa baynahuma dañuy teqale seen diggante illa an yurdiyaha lu dul ni waa ji gërëmloo soxna sa aw yafrida laha sadaqa misliha fa yalzamuha wala boog mu tëralal ko can gu gu mel ni ga ñu jox ay sëram su ko defee loolee doon luy lënkoog moom mbokk kon day wax fii rek ci ni dana dagan ñu takk ak sëy ci kenn tudd ca can looloo tax dañoo ñëw ñu takk sëy bi ñu ne waaw indi nañ can gi can gi quinze mille la can gi nangam la loolu mbokk du farata ci sëy bi loolu du farata ci sëy bi la nga xam ne muy farata daal mooy soxna buñ la ko mayee tudd nañ canam tuddoo can amoo droit ànd ak moom ci lal lu dul jox nga ko dara wala dig nga ko dara moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan laa junaha alaykum in tallaqtum nisaa maa lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida dara nekkul ci ngeen fase jigéen fekk musu leen koo laal musu leen koo tëralal benn cant loolu dana am kon mu won na sëy bi mu méroon na moo tax suñu borom ne du ngeen dara nekkul ngeen fase ko am ma nag bu dee ni waa ji may nañ ko ko su boobaa dafa war a indi can can googi mu jox ko lañu miin di ko jox ay sëram su dee daa indi lu gën a néew loolu dañ naan soxna si ah ndax d'accord nga d'accord na loolu mu amul problème su dee ni d'accordul su boobaa dañ naan ah waa ji kat il faut nga indi lu mel ni li ñuy may ay sëram sinon sëy bi lañ koy tas sinon sëy bi lañ koy tas maadaama bañ la koy may discute ñu woon ci wàllu sëy léegi li fi des nga jox ko lum kontaan wala nga jox ko li ñuy jox ay sëram wala ñu tas diggante bi loolu moo aju kon ca wàllu sëy googe kon ñu ngi noonu la am aju ci wàllu dépense yi ak la way aju ci wàllu sëy boobu ñu mujj takkit ñàkkul xëy na ku ci amoon laaj bala ñu dugg ci beneen bunt bi waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ki nga xam ne dafa am jaamu boppam ki nga xam ni dafa am jaamu boppam wëlbatiku di ànd ak moom ci lal ba doom juddoo ca kooku bis bu dee jaam bi day daal di gore kooku nag ñi nga ko may jaam bi nga moom yow amma loolu du nekk di valable ca yow sa jaamu baay sa jaamu baay moomoo ko sa baay moo ko moom yaag say frères yi na ko bokk maadaama sa jaamu baay la dañ koy considérer moom jaam yëpp a yem su dee am ngeen doomi du tax moom mu doon koo xam ne nii ku gore dañuy jàpp ba tey ni doom bi day nekk doomu sa jaamu baay looloo looloo tax mu ne ki nga xam ne nii mooy jaamu dëgg mooy day doon sa jaamu bopp wala sa jaamu doom mais bu dee sa jaamu baay la ku mel noonu terewuñu nga takk ko ndax su boobaa dafa mel ne jaamu jaambur ci yow mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam bismillah naam
ndax maanaam yemale gi la lislam sant ñoom ñaar nga war a yemale yemale gi ba ca des cem ndax mu ngi wéri ci ñaar ñu war a sëy wala wala mu ngi wéri ci kii bi nga wéri ñu
la nga xamee ni nii mooy kii nga xam ne dafa am jaam wax nañ ne kooku moom amul luñ koy sédd ci wàllu fanaan ak moom sax waxuma di ko yemale ak ak gor ya déedéet kooku moom kenn du ko yemale ak ay gor mu des la ñuy mën a wax kay mooy jaam boo xam ne dafa takk ay jaam ko mel noonu moom dañuy jàpp ni moom it dañ koy sant na yemale ndax aaya ba day dal ci kawam su ngeen munte yemale yem leen ci benn waaye ki nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii dafa am ab ab ab jaam bu mu moom loolee da ngay gis ne nekkul lu ñu koy sant mu yemale mu des nag ki nga xam ne nii dafa takk dafa takk gor ki nga xam ne dafa xis ba takk góor islam du ko may mu dem di takkaat jaam ndax suñu borom dani mooy ku munta takk góor ci yéen looloo tax doo dem takk am jabari góor ba pare dem nag di takkaat jaam soo xise ba am jabari góor kay len rek nga mën a am jaam boo moomal sa bopp mi ngi noonu waaye mënoo too takk jabaru jaam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma lu mujj li yaa ngi doon wax ci can waaw ndax can kan moo koy kan mooy tëral can la nga xamee ni nii moom mooy cosaanu can can gi ki ko moom mooy soxna si soxna si moom moom canam donte ne nag ay way juram ñoom la ciy discuter mooy wëliyu bi ki nga xam ne moom mooy maye ay moom maye ay soxnaam waaye soxna si nga xam ne mooy dem sëy kookee moom mooy tër nangu ci can ga nga xam ne may nañ ko ko moo tax ki nga xam ne nii soxna Saabit ibnu Qays ba mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaam ne ko saabi bi man bëgguma ko kaza wa kaza mu ne ko waaw jardin bi mu la mayoon ndax mën nga ko koo delloo mu ne jardin ma nga nele moo tax it fii da ngay gis can gi da koo delloo soxna si waxul wëli yu wëli yu soxna si daane soxna si bu nangoo dañuy wéyal sëy bi bu nanguwul it dañuy tas sëy bi kon la nga xam ne can moom way jur day conseiller doomam waaye ka nga xam ne moom moo ko moomal boppam muy canam muy alalam moom mooy ka nga xam ne mooy doomam wallahu subhanahu wa taala alam waaw suñu abo waaw ci ci mbir mi la ñuy wax de waaw bismillah waaw waaw loolu waxoon nañ ko ci darsi yi passé can li ka tënk ci rubu ordinaire imam mooy mazhab malik ñoom dañ ne soxna si li ko yàlla may muy awraam di payam dafa worma la kenn du ko jalgati lu dul ci alal alal jooju mu ne wa atu nisaa saduqaatihinna nihla dañ leen a jox seen alal ñoom ñoo ko moom alal nag dañ ne ci sharia waa ji suñu borom nee na ku sàcc dagg leen loxo mais ki sàcc lu yées rubu ay dinaar kooku kenn du dagg loxo kon ñu ne kooku sàcc lu ñuy tudde alal amaa nag bu sàccee rubu ay dinaar ñu ne kon nañ dagg loxo foofee lay ulama mazhab malik sukkandiku ba ne it yow bala ngaa dem di daganal soxna sëy fokk nga indi alal alal ji nag la ci gën a néew mi ngi commencé ci rubu ordinaire mi ngi noonu waaye loolu bañ koy jàngale it waxoon nañu ne gisuñu fuqaha u maliki yi waaye bu ñu delloo ci sunna dëgg dëgg dëgg dañuy gis yonent bi alayhi salaam maye na ba tey ci loo xam ne mooy yées rubu ordinaire wallahu subhanahu wa taala alam waaw kon ñu jël beneen bind mu ne wa iza wa iza irtajja ahadu zawjayni su dee dafa génn ci diine kenn ca ñaari sox ca ñaari dencante ya in fasaqa nikaahu bi talaaq des na teqale sëy ba ci ak fase wa qad qiila bi gayri talaaq am na ñoo xam ni dañ ne dañ koy teqale rek waaye fase amu fa wa ida aslama alkafiraan su dee ñaari yéeféer dañoo bokk dugg ci lislaam sabata ala nikaahihima dañuy sax ca sëy ba ñu sëyoon ca kéeféer ga wa in aslama ahaduhuma bu dee kenn ci ñoom moom moo dugg ci lislaam fa zalika fasxun loolu day firi sëy ba bi gayri talaaq ci lu àndul ak am fasi fa in aslamat hiya bu dee soxna sa tuub na fekke si ko kaana axaqa biha waaja moo ci gën a yey in aslama fi l idda su dee ne jibbalu woon na ca idda ba jeexagul woon wa in aslama huwa bu dee ne waaja moo dugg ci lislaam wa kaanat kitaabiya te fekk soxna sam doon sëyal juif la wala chrétien doon ahlul kitaab sabata alayha du tey day sax ci moom sëy ba dagat na ba léegi fa in kaanat majusiya waaye bu dee ne dafa nekk ay athée mooy jaamu ko te safara yi nga xam ne ay athée lañu fa aslamat soxna sa tuub dugg ci lislaam ba'dahu gannaaw ba jëkkër ja tuube makaanaha ca place ba nga xam ne nii mooy yàggul kaana zawjayni dañ leen di considéré ba tey ñaari ay dencante lañu wa in taaxara zalik waaye bu dee loolu nag dafa yéex faqad baanat minhu su boobaa kon teqalikoo na ak moom muy la nga xam ne mooy génn na ci moom ci ci ak buumam wa ida aslama mushrik bu dee ab bokkaalekat moo tuub dugg ci lislaam wa indahu aksara min arbain fekk indaale na lu ëpp ñeenti soxna fal yaxtar arbaan na ca tànn ñeent wa yufaariq baaqiyahunna mu daal di teqidikoo ak ña nga xam ne ñoo ca des mi ngi noonu mbokk kii day dellu ci question bi mbokk bi doon laaj mooy ñaari way dencante ngi nii ñu dem ba mujj rek kenn génn ci lislaam yal na yàlla musul ñu ci loolu te mbokk suñ maam yi xamuñu woon loolu waaye mi ak a bëri tey suñu jeune intellectuel yi dama dema dem ba tubaab bi nax la nga xëy génn ci lislaam mi ngi noonu génn ci lislaam mi ngi noonu yàlla mas na ma nattoo ma toog ak benn couple intellectuel de haut niveau de haut niveau fa intellectuel yam kenn ki dafa xëy génn ci lislaam toog naa moom ak soxna si mën a ko seen sëy bii ñun suñu diine nanguwu ko parce que moom comme génn lislaam maag moom bokkutuñu ak diine donte ni ci lislaam la juddoo ci lislaam la yaroo yàlla na yàlla delloo si ko ci lislaam waaye loolu mën a ko xam ni seen sëy bi suñu lislaam reconnaître ko kon heure boo xamee ne kenn ki génn na ci diine dañ naan sëy bi moom teqali nañ ko borom xam-xam yi na uute ndax dañ koy considérer fase su boobaa ndaw si day toog ñetti règle doog a mën a sëy wala dañuy considérer ni sëy bi dañ koo teqali ci ni sëy bu baaxatul la su boobaa dañuy gis bu toogee benn règle rek dana mën a sëy ñu xam ni ëmbul loolu mi ngi noonu mu des beneen cas ñaari yéeféer ñi ngi nii dugg si ci lislaam ñaari yéeféer dugg si ci lislaam sëy ba ñu sëyoon bu dee ne sëyoon nañ ca lañ xam ñoom sëy islam da koy reconnaître sëy boobu day wéy allahuma tey boo demee occident la ëpp ci ñoom sëyatuñ mbokk tey da ngay gis dëkk tubaab yu bëri boo déggee sëy bala nga koo dégg ci kenn xamul relation rek la ñuy ànd loolu nag l'islam da koo reconnaître mais daal lu ñu mën a tudde sëy na doon ca xamb yi la ñuy takk sëy baag ca église bi lañ koy takke maadaama tudd nañ ko sëy moom ñu ngeen tub dugg ci lislaam sëy boobu islaam da koy soxal gannaaw loolu it bu dee ne kenn ci ñoom moo tub dugg ci lislaam léegi keneen ki tuubul waaye balaa yàgg keneen ki daal di tuub fekk idde bi jeexagul seen diggante dañ leen di boole ñu ànda mu nekk sëy bu normal jarul takk dañuy àndaat dem amma bu dee ne dafa am koo xam ne nii dafa tuub dugg ci lislaam fekk na ñoom ñaari chrétien lañu ku góor ki tuub dugg ci lislaam teewul sëy bi day continuer lu waral loolu mooy góoru jullit am na droit sëy chrétien mais bu doon soxla si moo tuub sëy bi moom yàqu na foofu lu dul ne balaay yàgg idde bi jeexagul waa ji tuub fekk si ko ci lislaam dañ leen di boole waat ci l'islam boobee ñu ngi may fàttali benn histoire boo xam ne nii am na mbokk bu ko doon nettali ci kër Abu Abdou Karim Gueye yal na yàlla jéggal ko ca yërëm ko fii ma toog toog na fi def fi benn waxtaan mu nekkoon dëkkoon fii ci géejawaay liggéeyoon liggéey bu rëy ci l'islam rawatina ci Côte d'Ivoire am na benn cas bu ñu fa doon nettali ci Amérique benn jigéen julit am benn jigéen américaine dafa ñëw tuub bi mu tuubee dugg ci lislaam bi mu paree imam bi nag xamal na ko nag ah mais day yaa problème mu ne ko problème yi lan la mu ne ko nag comme léegi julit nga amatoo droit di sëy sa jëkkër bi nga xam ne chrétien la mu ne ko ah bon mu ne waaw foofu la ko téléphoné na ko waaye suñ càmm mu ne waaw xamal ne kat dugg naa ci lislaam te teqali na suñu diggante teqali na suñu diggante mais affaire boobu travail na jëkkër bi jëkkër bi def ay recherche def mujj ànd ak moom ci imam ba ñëw tuub ñoom ñëpp dugg ci lislaam xoolal li suñu borom di wax rek wa man yattaqillaha yajallahu makhraja ah bu fa nekkoon ñu négocier naan kara kara mais da koo téléphone ak ci saasi te yal na yàlla saxal ngëm ci suñu biir xol moo koy saxal ci ku ko neex njabari firawna ya jóge nañ ci région Égypte yépp ñëw ngir jànkonteeg Moussa ci suba ñoom ñëpp ay yéeféer lañu ci ngoon ñoom ñëpp ñu shahid dee ci lislaam yal na yàlla rey ñu ci lislaam loolee kon mbokk bu dee ne am na ñaari couple lañu kii ay couple lañu kii chrétienne la góor gi jëkk a tuub amul problème sëy bi day continuer soxna si moo jëkk a tuub sëy ba yàqu na su góor gi tuub see fekke si ko idda ba jeexagul dañuy continuer la nga xam ne moom mooy seen sëy loolu lay wax ci loolu la nga xam ne moom la mujjee nag mooy su dee ne ab yéeféer daa tuub si ñëw ci lislaam ñëw ci lislaam comme ni ma leen ko waxee ci xëyran al saqafi su boobaa dañ naan ko na tànn ci soxna yi ñeent ñeent ñum ci tànn islam reconnaître loolu ña ca des moom ñu daal di teqale la nga xam ni moom mooy seen diggante te it ñu xam ni mboole mi doom yi juddoo woon ci sëy yooyee yépp islam da leen di reconnaître ñuy doom yu valable yoo xam ne bu seen bàyyi dee woon dañ leen di doon kon mbokk incha allah loolu la yàlla dogal ñu waroon ko jël tey yal na yàlla defal ñu tawfiq fi dunya wal axira barkeelal ñu suñuy sëy barkeelal ñu suñuy njaboot gi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain kon incha allah mi ñu gi ci des bi am na ay laaj yoo xam ne nii teg nit ñi am bismillah waaleykum salaam
fekkee dañu waaju sëy saa ñu waxtaan ak waajur yi ba waajur yi d'accord ñu par exemple dimanche bii ñëw la ñu may léegi ci diggante bi laata ñu may dañuy jox waay téléphone ba ba jéggi dayo ak ñi nga xam ne dañuy labat ci diggante bi dañuy wax téléphone bi ay maanaam bu jéggi dayo daal
jéggi dayo moom lu mu am rek baaxut waaw waaw tubaab bi sax nee na trop c'est trop waaye daal dara nekkul ci koo xam ne dem ngeen ba labat nañu ba ñu ngi leen koy waaj a may day waxtaan ak moom xam ay jukkoom xam ay bëgg-bëggam ak mentalité am yu demee noonu maadaama mi ngi nar a jóge seen kër ñëw ci sa kër loolee da ngay gis ne bu ca baatub jéggi dayu amul rek moom loolee incha allah lislaam tere terewu ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam laa ko ji xaal waaw kon mel na ne kon question yi jeexoon na ci ah da nga ñaari yéefar yi bu ñu ñëwee dugg bi dugal bi lislaam dañuy ku séebér yi continuer seen doom yi ñu amoon itam dañu ko lislaam ba koy fenk mais fekkoon am nañ doom ñu majorité moom ñëwul def ci leen nag kooku
déet c'est-à-dire que ne da koy reconnaître ci ne du ñu doomi njaaloo laa ci jublu mooy dañuy reconnaître doom yi du ñu doomi njaaloo amaa kay ñoom doom ya nag la ñuy seet ndax ñoom bu ñu demee ba majeur ban diine la ñuy jël ña ca majeurul ñëpp dañ leen di considérer njabootu l'islam te mooy képp koo xam ne majeuragul ci ay waajuram ay jurit lañu dañ koy jàpp njabootu l'islam la bu demee ba majeur nag jël yoonu boppam loole moom yoonu boppam la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon ah ah ah ah waaw ala kulli xaal dëkk bu nekk dafay am ay aada yoo xam ne dañ koy tëral waaye la nga xam ne ni nii mooy la jaadu mooy nit ki day ñëw day labat ci soxnaam ñu ne kat kii lii la ñuy may ay soxna ay ay ay ay kii fi ñuy may lii lañ koy may loolee nga xam ne nii dañ la koy laaj loolee la ñuy tudde can lépp loo xam ne nii buñ bu dul woon ak mooma duñ la jox soxna si loolu la ñuy tudde can bu ko defee bu doon te ne ne tey mën ngaa dem lu mel ne ci yenn alpulaar rek yooyu ñoom buñ ñëwee di takk sëy bi dañ naan indi nañ jur gi ay nangami nag wala nangam nangam am ñoo xam ne nii valeur jur ga la ñuy joxe ñun nag suñu problème dañ naan kii kat ah moom day sëram yëpp un million lañ leen may ñu ne cinq cent million cinq cent mille lañ leen may nga joxe cinq cent mille ca kër ga ba pare ñu ñëw nag ñu ne can gi dix mille francs la loolee mbokk nekkul woon li jaaru li jaadu mooy la nga xam ne dañ koy laaj ca mooy tax ñu may la soxna loolee la ñuy tudde can te moo taxoon boo demoon léeg-léeg ci jàkkee ahlu sunna yi ñuy maye seeni doom ñoom can gañ joxe ci kër ga la ñuy tudd ndax loolu mooy la nga xam ne mooy can am maa nag bu dee nii way jur bi moom moo ne kër ga kenn du fa joxe dara lii mooy can gi dañaa xam ne lii mooy can gi waaye daal nañu xam ne can mooy la ngay joxe pour ñu may la soxna wallahu subhanahu wa taala alam naam naam te loolu lépp li ko fi indi rek mooy problème surtout rebond dinaar boobu ñuy wax nga xam ne jàpp nañ ni ñoom imam Malik def ne du ñu takk sëy lu yées rubu dinaar ñoom ñu ne du ñu takk sëy lu dul ci rubu dinaar loolee mbokk erreur la erreur la bu rëy ba léeg-léeg temps yee ngi dégg ñu naan waaw ndigal jóge na ci nangam nangam sëy yi nañ ko yemele fii mbokk loolu bokkul ak la Malik wax ulama wu Malik yi ñoom dañ ne la gën a néew mooy rubu dinaar waaye waxuñu ne rubu dinaar la ñuy takke loolu moo taxoon sëñ tam day dem ñu limal koo limay limal ba muy génne rangooñam léegi nag ñu ñëw ci si nag ñu ne rubu dinaar bi mooy nangam li li li li mooy can ki ah ah mini minimum la mazhab Malik wax minimum mooy rubu dinaar amma nag bu dee ne maximum moom suñu borom nee na qintaar te qintaar moom kenn xamul fu mu yem mbokk mi ngi noonu kon wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain